sëñ bi Amath ñu ngi lay nuyu. soxna Fatou Thiam maa ngi lay sant di la gërëm. am mbégte lool dalal ci matinalu Rewmi FM tey waxtaanee tolluwaayu seen bërëbu liggéeykaay boobu di Sanofi xam ni dafa jël euh, dogal bu bees euh, mooy tàqaliko ak ñaar téeméer ak euh, ñeent fukk ci ay liggéeykatam yu nekk diggante Sénégal ak ni réew ana lan moo xew dëgg-dëgg ci Sanofi. jërëjëf soxna Fatou Thiam comme ni nga ko waxee en fait Sanofi dafa dafa fas soppi doxalinam. Hmm. te ci soppi doxalinam boobu noonu mu daal di ci yóbbu euh, lu mot comme ni nga ko waxee euh, ñaar fukki euh, téeméeri doomu aadama moo xam ci diggante réew bi ñu wooyee Sénégal ak Côte d'Ivoire ak Cameroun léegi buñ ko jëlee ci Sénégal rek xayma bi mi ngi toll ci juróom ñetti fukki doomu aadama yi nga xamante ni fi dafa fas yéene leen def li ñuy wooyee licenciement collectif maanaam dàq ñëpp. Mm. léegi lu waral dàq gi lan moo waral dëgg-dëgg ñu soppi doxalin ba mu jur euh, dàq googu ñuy wax. lu tax mu mu mu mu mu soppi mu bëgg soppi doxalin comme ni nga ko xamee rek niñ naan système capitalisme maanaam nit ki nga xamante ni moom chaque fois mi ngi xool bénéfice am. Mm. nu mu ko gën a yokkee. looloo looloo looloo ko looloo mbëbët lii nga xamante ni sana fas yéene na ko def. parce que comme ni mu amee bénéfice am gis na ni euh, liggéey bi defar nañ ko ba mu tegu ci yoon ba pare nga xamante ni tey même bu fekkente ne dàq na sax daanaka euh, produit yi nga xamante ni nii euh, ñi doon liggéey ci biir kër gi daanaka installé nañ ko ba pare fileeg diir dina continuer di dox même bu fekkente ne waxatuñ ci liggéeyatuñ ci. Mm. waaye loolu yëpp mm-hmm. da ko booleeg rek ak ñàkk ñàkk warloo ak àq ak yelleefi doomi aadama yi. Mm-hmm. justement looloo leen ci naqadi mooy euh, seen i àq ak seen i fi ngeen jàpp ni joxuñu leen ko ana ngeen di sàkku tey ci ci Sanofi ak euh, fan ngeen ko teg. li ñuy sàkku ci Sanofi lenn la rek. Mhm. ndax yaakaar naa ni euh, ñu jot a liggéey foofu ay ñu lu mat fukki at ñenn ñi fukki at ak juróom ñenn ñaar fukki at. Mhm. ba fanweeri fat yaakaar naa ni. kooku noonu bu taxawee nga ne yow da nga koy danga koy da koy dàq ci ci ci guddi yi ñu toll nga xamante ni. maanaam ah, mbas bi wër na àdduna wërgal këpp hmm. ba pare nga bëgg ne kooku noonu buy dem du yóbbu lu mooy fukki weer ak juróom ci maanaam ci saleer hmm. nga xam ne ni kon loolu moom mooy tey ñoom ah, seen doxalin waroon na torop ak la nga xamante ni moom nañu faral di def ci seen réew tugal ndax bu ñu xoolee ci ci ci maanaam lii sana fi jël jël na ko ci réew yu bari pour soppi doxalinam waaye bi mu koy def dañu gis ni ah, ñi nekk bitim réew notamment France bi ñuy dem yóbbaale nañ euh, lu ñuy wooyee li ñuy xayma euh, maanaam trente trent six mois de salaire. fanweer ak juróom-benn maanaam ñeent fanweer ak juróom-benn weeru salaire la ñuy jox. Mm. ñooñu noonu di dem. te ñun ñu gis ni loo fa waroo trop ak ñun li nga xamante ni jox nañ ñu ko. ngeen jàppale discrimination te lenn rek. Mm. mais fàttali ni lenn rek soxna Fatou. Mhm. soxna fi dañ ne ñëpp benn lañ. Mhm. te yaakaar naa ne ku ne say travailleurs yëpp benn lañ. Mhm. ñoom ñëpp ku ci nekk mu jàpp ci liggéey bi ba tax soxna fi yegg si fi mu yegg si nekk premier au Sénégal premier en Afrique nekk premier en Europe nekk sixième au plan mondial yaakaar naa ne ku ci nekk sa loxo dugg na ci. donc benn boobu ñuy bennoo boobu ñuy woote yaakaar naa ne war nañ ko yaatal ba ñun mi doomi réew bi nekk Sénégal ñu war mën a am li nga xamante ni seen ay doomi réew yi nekk tugal am nañ ko. d'accord loolu discrimination ngeen ko jàppee euh, léegi euh, est-ce que bi mbir mi amee yéen waxtaan ngeen ci ak waa Sanofi wala kilifa yu Sénégal. waaw benn bi ñaare bi moom mooy waxtaan nañ ci ak kilifa yi Sanofi. Hmm. pour ne leen ni ko yéen a waxoon ni ñun ñëpp benn lañ. te gis nañ ni la ngeen jox seen i doomu réew waroon na torop ak ñun li ngeen ñu jox. benn ñaare bi moom mooy ci maanaam euh, jumtukaay pour wàllu nit ki bu feebaree mu mun a faju hmm. la ngeen jox seen ay doomi réew toll na ci ñaari at ñun ngeen bëgg ñu yemale juróomi weer ak benn. Hmm. ñu gis ni tey la nga xamante ni moom mooy maanaam maanu wàllu wàllu jàppale ngir crise sanitaire bi hmm. ndax ku xam crise sanitaire xam impact bu mu am sur le plan économique. Hmm. ñu gis ni loolu noonu ñoom gunge nañ seen ay doomi réew moo xam ci wàlli wàlli wàlli wàlli wàlli wàlli recyclage pour mën a def beneen formation ngir mën a am beneen xeetu liggéey wala wàllu entrepreneuriat bu toll ci junni jëm ñaari junni ak ñeenti téeméer ci ay euro hmm. ñun ñu naan ñu dañuy jàngal nu ñuy bindee CV ak lettre de motivation soxna Fatou ku xool loolu xam na ni hmm. ñàkk ñàkk wekk doomu Afrique métti hmm. na waaw léegi kilifa yu Sénégal yi lu ci seen taxawaay sur le plan local autorité yi tamit daanaka ah, bi mbir mi amee comme bay tabaski la am coow li ci jot a juddu yëpp ndax ay père ak ay mère de famille maanaam boo leen dàqee seen place liggéeykaay du ñu toog noonu di la seetaan. Mhm. daañu ko yuuxu ba fu yuuxu yem. Mhm. ba loolu tax na ni ah émission yi ñu jot a def. Mhm. kii di gouverneur de Dakar jot na ci autosaisiru. bi mu ci auto autosaisir en tant que euh, pouvoir exécutif. mu mu mu laaj waa inspection ngi ñu ñëw inspecté si Sanofi ngir xam lan mooy mbëbët bi ak lan moo waral coow lu bari li. bi mu ñëwee nag daje naa kii nga xamante ni moom mooy suñu directrice des ressources humaines mhm. ba waxtaan ak moom ba kooku xamal ko ni que vraiment lii nga xamante ni Sanofi jël na ko comme décision waaye tam mu kay xamal ni que ah ñoom kat ñu ngi bëri lu ñu mën ngir ñu respecté suñuy àq ak suñu yelleef mhm. ba tax na loolu bi mu amee it yemuñu foofu rek bind nañ ay bataaxal yónnee ko ñii li nga xamante ne nii ñoom ñooy représenté France fii en l'occurrence l'ambassade de France mhm. bind nañ ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew bi mooy son excellence le président Macky Sall. Mhm. ndax damay fàttali mbir daaw bi crise bi démarré moom dafa laajoon mais employeurs yi nañu fexe ba licenciement yi nañ ko wàññi. Mhm. et que bu bayee ba nga xamante ni mënta bañ a ne na nekk loo xamante ni maanaam nit ki def na lu waroowul ak liñ ko sant. Mhm. maanaam faute lourde pour mën a justifier lu tax ñu war ko licencier mais dañu gis ni donte crise bi mi ngi fi waat ba léegi variant yu bees yi yi nga xamante ni ñoo gën a soxor ñi ngi fi donc loolu moom mooy précarité de l' emploi boobu moom bu su ko seetaanee mm. te moom mi ngi wax ci wàllu employabilité des jeunes mi ngi wax ci wàllu maanaam fexe ba utal xër liggéey jeunes yi ba pare au même moment mu am ay entreprises yu fi ñëw di di di di dox en contre courant de moom li nga xamante ne mu ngi koy xeex di ko mbëbët ci askan bi. léegi yéen am ngeen yaakaar ne kilifa yi Sénégal yi dinañu mën a saafara seen tawat bi wala da ngeen am yeneen yoon yoo xam ne xëy na bu sottiwul ngeen aw fa ngir euh, mën a jàmmarloo ak Sanofi non am nañu yaakaar trop ci suñuy banqaas yi réew. Hmm. notamment ci suñu président de la république son excellence Macky al ak bépp banqaas bi fi ne moo xam direction de la pharmacie la moo xam ministère de la santé la. Hmm. moo xam ñii nga xamante ne nii moom mooy ministère du travail et de l' emploi damay fàttali banqaas boobu noonu nekk na banqaas boo xamante ne yaakaar naa ne war na xool lépp lu entreprise yi di doxale hmm. xool ndax ñu ngi respecté ak ak yelleefi doomi aadama yi te rek bi bi amee ñoom. woo nañ autorités yi nga xamante ne moom mooy waa fi mhm. ngir ñu ñëw ñu toogaat waxtaan ngir ñu xool nu ñuy fexee ba ku nekk ñu mën a respecter say àq ak say yelleef mhm. te loolu am nañ ci yaakaar ni bu ci président son excellence Macky Sall jotee mhm. mu waroo mu waxtaan ceeg ki nga xamante ne mooy naataangoom bi nekk France am naa yaakaar ni bu ñu ubbeewaat waxtaan yi maanaam mbëbët mën na mën na ci mën na mën na cee am li ñuy xaar ci ñoom ñu mën ko am. Mhm. léegi ndax euh, yaakaaroon ni Sanofi dafa nekk rek ci ay jafe-jafe ci wàllu koom-koom euh, ba tax mu bëgg a xëy na tàqalikook euh, yenn liggéeykat yi ndax ci mbas mi ñu toll nii xel nanguwul këru liggéeyukaay boo xam ne dafa ci am solo lool di rocceeku ci yenn itam gox yu mel ni Sénégal ak yeneen i réew yoo xam ni xëy na yëf yi metti na fa lool ci wàllu wér-gu-yaram gi. jërëjëf Fatou dama lay dama lay sant ci laaj boobu nga ma laaj ndax laaj bu am solo la mm. ndax comme ni nga ko waxee tey euh, bi crise bi dooree ba léegi yaakaar naa ne bu ñu xoolee ci àddina wërngal këpp ñëpp a doon yuuxu mm. ñëpp a doon yuuxu ndax liggéey doomeetul woon noonu fépp la méttee fépp la méttee woon ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi doon am as tuut ngir mën di jëf ngir mën di di di di mën a saafara li nga xamante ne moom mooy mbëbatu liggéeykat yi Sanofi ca jamono yooyu nekkoon na mun naa ne benn wala ci rare entreprise yi nga xamante ni jotoon na def benn bénéfice net de ñaar fukki milliards ci ay euro te ku xam euro ñaata lay xay boo ko xayma waaye ci franc CFA nga xam ne ni loolu xaalis bu takku la. Mhm. ñu wëlbatiku ñaanaam ñi nga xamante ni ñoo ci dugal seen koppar te ñun ñëpp ci lañu bokk maanaam actionnaires yi ñu séddale leen lu mat ci ñeenti milliards ci ay euro mhm. te yaakaar naa ni ku mën a def loolu ci bu amee. kon kooku du mooy ki nga xamante ne mën na wax ni dafa am problème mu financier. Hmm. te ñëpp xam nañ ni crise sanitaire bi kan lay gën a profité maanaam ci gànd yi ñu toll moom mooy ku nekk ci industrie pharmaceutique. Hmm. ndax kuy xam produit Sanofi xam na luy Doliprane. Hmm. ndax Doliprane yaakaar naa ni jaratul ñu koy publicité. jaratul ñu koy wax. képp ku ne xam na lii astégique. ndax yaakaar naa ne astégique nourrisson képp kuy xeex ngir wàllu hypertension ngir bañ nit ki def AVC. Mhm. nekk na garab boo xamante ne dañ koy utiliser. Mhm. te loolu ñaari garab la rek ci bépp garab yi nga xamante ne Sanofi am na ko. Mhm. te mu dugg ci xeexu mbas bi. donc pour fàttali mbas mi Sanofi def na ci rôle bu am solo. mais maanaam garab yi muy utilise tey tax na ba chiffre d'affaires bi ñu def ci weer bi ñu génn. mën na ci benn million ak genn wàll ci euro rien ci Sénégal. ci weeru juillet donc loolu moom boo ko xayma yaakaar naa ni jarul sax ñuy dugg ci yeneen yi nga xamante ni Sanofi mi ngi koy def ci maanaam ci wàllu vaccin ndax Sanofi am na vaccin yu bari yoo xamante ne yi ñuy jëfandikoo ci biir réew mi Sanofi moo koy liggéey hmm. waxuma nag vaccin bu mbas bi hmm. mais vaccin yi ci bari yi ñuy utiliser ci programme élargi de vaccination hmm. Sanofi moo koy liggéey te loolu nag ma ngi ciy jaare pour di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ngir Sanofi yegg si fii ndax Sanofi rek ñun donte xëy na dinañ ñëw di wax suñuy garab si suñuy baax baax. Mhm. waaye tamit ñi nga xamante ni ñooy bind. maanaam moo xam ordre des la. Mhm. moo xam ordre des la. moo xam ordre des chirurgiens dentistes la. Mhm. moo xam sage famille la moo xam infirmier ñoom ñëpp jàpp nañ. ci combat bi. moo tax Sanofi mën a yegg si fi mu yegg si ndax ñooñu bu ñu bindul woon produit Sanofi kon Sanofi du nekk numéro un au Sénégal. bu ñu ko bindul woon fii di Côte d'Ivoire ak Cameroun kon Sanofi tey ak yeneen réewu Afrique yi kon Sanofi du nekk numéro un kon loolu moom mooy contribuer nañ ci bu baax. donc nañu respecté suñu ak suñu yelleef. kon daal da ngeen jàpp ne Sanofi daf leen a bañ a fay waaye ñàkkulum leen fay. dama ne ñàkk ko ndax fan yi ñu génn rek gis ngeen ni que wax nañ ci réseaux sociaux yi ni que Sanofi jënd na vaccin bu toll ci ñetti milliards ci ay dollars. yaakaar naa ne kuy def ay investissement yu ni toll. Mhm. bu même bu fekkente ne la ngay def c'est pour rek continuer ngay gagner. yaakaar naa ne war nga fexe ba. yow ni ngay gañewee ñiy liggéey ak yow ñu mën a gañe kenn nawul lu ñu toll mais au moins ñu mun ci gis seen bopp. Mhm. ndax yaakaar naa ne ñooñu ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi pour mu ñu mun a yegg si fi ñu toll. Mhm. leer na jërëjëf El Hadji Malick euh, Amar euh, ñu ngi lay gërëm bu baax a baax fàttali ni yow yaay responsable régional réseau antibiotique bu Sanofi bokk itam ci collectif des délégués du personnel euh, ci Sanofi Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax amoon nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi nga xamante ne dalal ngeen ñu ko.